ci bind yi nga xam ne ci la ñuy jàngale adkaaru sabaaxi wal masa ñaani suba yi ak ngoon yi jotoon nañoo jàng kon ci ñaani suba yi jàng ñetti saar yi qul huwallahu ahad qul a'uuzu bi rabbil falaq ak qul a'uuzu bi rabbin naas ak laa ilaha illallah wahdahu la sharika la fukki yoon suba fukki yoon ngoon ak subhanallahi wa bihamdihi temir wala luko upp ci suba gi temir wala luko upp ci ngon gi bismillahi alladi la yadurru wa asmihi shay'un fil ardi wala fis sama ñetti yoon ci suba gi ak ñetti yoon ci ngon gi allahuma anta rabbi laa ilaha illa anta xalaqtani wa ana abduka benn yoon suba benn yoon ci ngoon gi asbaxnaa wa asbaxal mulku lillah walhamdulillah bu ngone nga ne am sayna naa am sal mulku lillah momit ben yon suba gi ben yon ci ngone gi allahumma bika asbahna wa bika am say wa bika nahya ben yon ci suba gi ben yon ci ngone gi kon loo lañ joto guna jang tay ñu daal di benen abdullah ibnu umar radiyallahu anhuma dafa wax na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dawul bayyi ñaan yi بوي خي لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح كون اير بودان خي اك بوي غونت دا دان واخ نيان جي نيان غوغو موي بان اللهم اني اسالك العافيه في الدنيا والاخره اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عورتي كنن كيروان عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي wa audu bi azamatika an uxtaala min taxti ñaan gu xaw a gudd la waaye dafa laaj ñu jox ko suñu temps gis nga ndeysaan nit dana ne ah waaye lii di daa gudd man duma ko man li mu firi mooy sa wërsëg a gàtt rek wërsëgu million moo gën a moo gën a jafee mokkal lii fopp te moo ne heure bu nit ki xëyee dana ci jéem dana ko jéema a wuti mooy waral nit ka dem yendu ca marché ba ba ngoon fi ne ni wërsëgu xaalis lay wër loolee mu cay am moo tax mu nangoo toog foofa ba ngoon jot kee dem di nappi loolee mu cay am moo tax mu nangoo dugg ci géej ga boo demee mën na ca am weer sax ngir rek am lu am ci wërsëg kee dem ca bureau ba di liggéeyi ji xaalis biñ ko cay fay moo tax mu nangu faa def ay sept de temps ci bis bi waaw léegi nag wërsëg wu tol nii muy ñaan suba yeeg ngoon yi mom ñaata temps nga ko nga ci nangoo def pour am ko kon nag boo nee man mënuma ko rek li muy firi mooy da nga koo aajowoogul waaye bés boo ko aajowoo moom da ci def temps pour man koo mokkal daal koy am ku góorgóorlu am ah ku bàyyi ñàkk nag moo ko alal yam rek xam nga ne ku xëy ne man de moom aajowoowuma xaalis salaaman mii bisub tey jii nii amaana du ma bari xaalis bisub tey parce que xëyuma ca marché ba xëyuma liggéeyi dama xëy toog jàngale kon mom xaalis wutuma ko ci bu ko doa lola do do ci amu xaalis waye ke xey dem ci marché ba di liggey wala mu dem ci fami liggey nga xane ne lay wut bu ngone day day day day am xaalis bu bari lan moy suñu différence man dama wuti wutiwuma ko kooka xey wuti ko motax dana am ci posam lo xam man duma ko am ci sama pos, lu dul bu dama dem liggey nonu la xam-xam yi melit lu ci nit ki dal def temps gor lu ca dana ci am bu fekkee ne nag joxu ko ak xam ah, boobaa du ko am loolu rek la kon bi la yàlla defee tawfiq nga taseeg vidéo bu mel nii mooy koo xam ne nangu na laa jox lenn ci waxtoom ngir nga xam léegi nag yaa ci des ndax amaan na bu njëkk nga ne man ka damaa gisul ku ma ko wax wala xam ma ko woon man xam ma woon ne yiw yi am na wala gisuma ku ma ko jàngal léegi nag xam nga ko gis nga ko la ko jàngal léegi mu des nag nga jël nag ci sa waxtu nag def ko ci bo ko ci defé rek dal di koy mokal dal di koy adawo bis bu set nga di ko def jangal ko sa njabot ñoom ñu di ko def nga dal di am yool bi ci aju yépp ak li li ay ñaan la ñaan yi yalla dala koy nangul lo xolal ñaan yi buñ ko firi nga xam riyaay gi te heure boo xëyee ñaan nga ko bu ngone ñaan nga ko wa li mom kon bu la ko yalla nangulee mom sa mbir dana bax de lan la yonent bi doon ñaan ci ñaan yi mune allahumma yow yalla inni asaluka ma ngi lay ñaan al aafiya moy afiyah, afiyah moy muccu muccu ci wepp ay neena nak ma ngi la koy ñaan fi dunya wal akhirah ci aduna ak akhirah manam lepp luy aw ay rek nga musul ma ci ba duma ci tabbi ci aduna ak akhirah masalan am afiyah ci febar da nga dégg ko feebaroon ba tane mu ne lee kay am naa bu baax sax mooy tane naa kon nga mucc ca loolu aafiya la am aafiya ci ñàkk mooy nga mucc ci ñàkk bu doon danga cee tàbbi nga génn ci am aafiya ci wàllu ñàkk sécurité mooy nga am sécurité amu kenn ku lay tëru wala ku yàq sab der wala ku lay jël am aafiya ci sa alal moy sa alal kenn du ko jël wala mu lay nax wala ñu lay tabal ci ay guta wala yu mel nona am afei ci sa njabot nga xamne do ci gis mukk nak nakari mo xam ci ay febar mo xam ci nit ku fay ñew di ci def lu mu ci wërta def wala lu mu man di doon wala nga ak njabot gu deung yo xamne ne toujours ñi ngi def ay grawali yépp di tégué sa kaw rek di nakaral sa xol nga ñaan yalla jëf yalla defal la aafiya gogu nak ci aduna ak àllaaxira

niki nonu afiya gu mat sekk dal ci lepp lolou la ñaan fofu allahumma inni asaluka al afiyata fi dunya wal akhirah xam nga li ku ko yàlla nangu rek moy sa bir baxna ba faaw mu dal koy ñaanat ne allahumma yow yalla inni asaluka ma ngi lay ñaan al afwa ak ngeegal ngeegal moy lepp li ngay def ci ay mbir yo xamne borom bi tabaaraku taala bu la ci topé man mm, na la ci mbugal yàlla jéggal la ko muy lépp luy bàkkaar wala gàttañlu wala daal loo xam ne borom bi gërëmu ko yàlla jéggal la ko mooy effacé ko bañ la caa topp mooy baal la ko wal aafiya maa ngi lay ñaanit aafiya moom laa doon firi léegi muy mucc ci wépp aw ay lépp luy lor maa ngi la koy ñaan fii diini ci sama ad eh, sama diini wa dunyaaya ak sama àdduna wa ahli ak ci sama njabot wa maali ak ci sama alal bi may firi legi al afiya ci aduna ak alaxira detayon na ci yoy yep ni ci amé sa diine yalla defal la ci afiya ba yow yi yàq diine nit ñepp nga mën ci muccu amna na xamne ay xalaat yu bon gëm ay laïcité ay démocratie gëm-gëm yoy nga xamne day day funuxal ngëm yàlla yooye moom yooye la ko yalla natto mu nekk ci ngagn ngagn ba fatu ca yow nga am ca aafiya weddi yooyu yëpp gëmoo ca dara am aafiya ci gëm-gëm yu bon yëpp yi nga xam ne ay bokkaale laak gëm-gëmi bidaayaak am ñoo xam ne seeni dund yëpp ca lañ ko jeexal jàpp ne ña nga ci dara te buñ demee àlaxira musiba dal leen yow yàlla musal la ca waaye am aafiya ci nga doon nit koo xam ne doo doon am moykatu yàlla waaye da ngay doon koy topp yàlla loolu mooy aafiya ci diine am aafiya it ba nga xam ne ak réer dañ ci mucc ci diini parce que nekk ci réer kooku du aafiya àdduna comme li ma doon misaal léegi ci aafiya ci sa wàllu alal ci sa njaboot yooyu yëpp ci àdduna bi la mu ne allahumma astur awrati ci keneen kii mu ne awraati kon ñaar yëpp boo ko boo ci wax baax na allahumma astur awraati wala nga ne awrati yàlla yàlla nga suturaal sama awra awra mooy lépp lu bon loo xam ne bëggoo mu feeñ moo xam ci sa jëmm nit ki ay awraam ci boppam yàlla suturaal ko ba du dof bay wuññeeku wala mu dem ba ay jikko yu bon yi nga xam ne day dal nit ki te bu dalee nit ki moom muy dem bay bay wuññi ay awraam xam nga ni moo jigéen gi nga xam ne danga koy gis ci mbedd mi muy dox di sol col ga gën a bon goo xam ne day feeñal ay awraam moo xam ay tànkam wala ay nangam kooku fi mu nii daa nekkul ci aafiya parce que feebar moo moo ko dal febaru jikku bo xamne ne day wunni awram comme ne nga xamne ne ka wéré di febar ko dal ko xamne ne moy tax ba du meuna sol yéré yi bax fi ni ñaar ñoo xawa bok febar ki nak kii nag ci bokk côtéem jikkoom la kee côtéem xélam la waye ñom ñaari febar yoy ñoo bok résultat moy bu la ci dal rek nga wunni say awra nga ñaan yalla yalla musul la ci yalla sutural say awra ndiki nonu awra lepp loy bañ mu feñ lola masalan bakar bo def te bo def erreur bu am yu yep lu mu gëna suturu rek mo gën ci yow ndax nit leg leg mu def ay erreur te erreur yooyu bu xasee génn maara day taali duutu jar dara waye yalla sutural la ci ba kenn du ko xam sax far wala mu yam rek ca ñam ñang ko siqal wa amin rawati yalla nga ma defal security ci limay ragal rawa moy yi ngay ragal ak di di lo yooyu yalla, yàlla may la ci sikri ba do am len lu lay tidlo allahumma ihfazni min bayni yadayya yalla yalla nga ma sam ci sama kanam wa min khalfi yalla nga ma sam ci sama gannaaw wa an yamini Yalla nga ma sam ci sama jor wa an shimali Yalla nang ma sam ci sama chamoy wa min fawqi yalla nang ma sam ci sama kaw wa a'udhu bi azamatika ma ngi muslu ci sak maggaay an uxtaala min taxti an uxtaala mooy ñu may yong min taxti ci sama suuf mooy ñu jékki-jékki rek mëdd suuf si ma tabbi ci biir wala daal xëyti mbugal yi nga xam ne ci suuf lay jóge maanaam ci kaw ci suuf lay jóge kon ñaan la gu xaw a gudd waaye ku ko ñaan daanaka yow lépp luy aw ay moom ñaan nga yàlla yàlla musal la ci kon nañ ko jàng mokkal ko di ko ñaan ci suba gi ak ngoon gi subhanaka allahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كون لي سي اب جوليت مو جانغ موي مو جانغ لي التوحيد موي ويتال بروم سبحانه وتعالى غيسغا باس باس دا فا يونت بي عليه الصلاه والسلام امول لين لو ني بيسي اله الا الله رودنا دينا كو دانيل موي كاتلو توحيد انا خموني بوكال دا ياك جيف نينا يونت بي لا ان اشركت لا يحبطن عملكم والله محمد بو بوكالي سي جيف يام واو تي دغ دغ دغ بو ген خلاتي جيفانديكو سيني خيل نдах وار نغينا نانغوني امنا يالا كينين نينن ني في نيك ني موم ياو دا بو نلاكو لاجي قل لا اسد نيل من لا اسد